gouvernement bi nga que gouvernement bi jël na euh, ci euh, lay def ba a egg communication ci askan euh, lañ ko ndax dina doon bu la ndax amu fi loolu ak professeur Mor Faye université Gaston Berger professeur Faye ñi ngi lay maa ngi lay nuyu lu bari. ñu ci ànd ak euh, Assane Samb moom euh, xeltukat la ci wàllu politique jiite yéenekaay bi di euh, réew mi quotidien ñu ngi lay nuyu Assane. waaw jërëjëf kon dañu koy tàmbalee ak professeur Mor Faye gis nga ni gouvernement bi def nañ communiqué bërki démb pour wax ni daal dañu bëgg a def lii ñu def tey maanaam tànn ay ministre ñu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi nan nga gisee wàllu mel noonu ci wàllu communication. Euh, maa ngi lay gërëm Pam Gagne euh, di am mbégte lool ci li nga ma jox kàddu bi fu mu woon joxe sama xalaat ci li nga xam ne moom la gouvernement bëgg initier ci jëmale ko ci communication. Mm-hmm. loolu lu baax la xam nga euh, ab démocratie buñ ci nekkee am na ay principes yoo xam ne lay fonctionner. Mm-hmm. ñu nekk ci gouvernement bi. moomuñu nguur gi dañ ko dénk. Mm-hmm. ay mandataire lañ. peuple bi mooy mandat yi nga xam ñoo dénk nguur gi te bu leen ko joxee c'est sur la base de la confiance ak ay projet ak ay mission yoo xam d'intérêt général yoo xam ni nii ki leen di askan wi di xaar mhm. léegi ci loolu ñu di leen dénk nag léegi am nañu obligation du du ab privilège de obligation boo xam ni dañuy war a rendre compte régulièrement askan wi ñu li ngeen li dénk nii lañ ci doxee ak lii ak lii lañ ci am waaw mais bo, bo, boo itam gouvernement bi par exemple ministre bu ci ne am nga say conseil en com am nga sa direction de communication euh, est-ce que loolu doyul woon. Euh, doy na doyutoon xam nga euh, principe bi du am ay ay chargé de la communication man loolu la jàngale ci lay gëstu xam ñu ñu bari xam nañ ni ñi nek ci ministère yi nek ci ay service communication même sax ay matuwaay yu doy sax amuñu ko des fois da ngay dem xamni ni amuñu say outil de travail. Mhm. xam nga li ak pousse le moy sincérité parce que communication si c'est sur la sur la base de la sincérité légui foog ñu am mhm. sincérité euh, di di communiquer surtout ci li nga xamni mom la leen askan wi jox. xam nga problème gouvernement bi du du du problème du problème ñaka wax de c'est que li ñuy wax des fois moy li nga xamni ne tant que ñu ngi ci askan mi du xam lu ñuy def. ndaxte li ñuy wax moy bu ñu ŋàññee. Eh, ni réew mi ñu attaqué wala ñu ñi attaqué opposition bi. xam nga mooy problème contenu bi ñuy wax daal léegi ak la wax ak Souleymane ah. mhm. communication gouvernement bi problème mu contenu la. dañu war di communiquer ci des politiques publiques. d' accord d' accord dina dinaa ñëwaat ak yow Assane euh, nan nga gisee euh, li nga xam ni gouvernement bi fent nañ ko mu nekk fem bu bees boo xam ni communiqué moom moo leen ci tax ndax jàpp nga ni bi gën la pour yow. waaw am na solo lool sur le principe d'accord nañ ci euh, rafetlu nañ ko mhm. euh, ñu ubbeeku euh, yiislu wala li ñuy wax yiislu boo yoree gëlañ tukkal mu njool da ngay yenn saa da ngay yiislu nag pour la man mën a jot ci yow mhm. looloo tax ñu rafetlu ko jàpp ni rek le fait que rek ñu jàkkaarloog askan yi rek ndax boo jàkkaarloo journaliste rek yaa ngi jàkkaarloog askan mhm. parce que journaliste moom relais la rek Mhm. donc loolu rek déjà sur le principe am solo. Mhm. Euh, donc ñu effectivement même ñaari réserve yu ci def bi ci forme bi la. Mhm. périodicité bi euh, euh, jours yu nekk nag xaw ndax bu tamit day day day day day da ngay mais mais aussi duñu parce que ñii dañuy ñëw après ñeneen et puis actualité aussi mën na changement actualité waaw appareil appareil ministre kii bi gouvernement bi yaatu na effectivement mën nañu may chance ci côté boobu. Mhm. mais teewul euh, bu bu exercice bi baree luñ koy organiser bu yàggee journaliste bi boppam na ñu koy commencé di soofantal donc euh, véritablement mën nañ ko def benn yoon par mois wala peut-être benn yoon ñetti weer yu nekk yaakaar naa loolu moo doon gën sur la forme. Mhm. dans le fond aussi euh, est-ce que ministre yi dina leen may courage. libéré leen ñu mën a waxtaan dëgg-dëgg ubbi seeni i xol wax ak askan wi wala déet dañuy nekk rek ci li nga xamante ni mooy protocole bi. Mhm. Euh, réserve bi euh, obligation de réserve. Euh, indi raison d'état teg indi raison politicienne teg. Mhm. ba nga xam ne yeneen discours yi duñ ko mën a tenir parce que dañuy xalaat ñu sanctionné leen wala ñu mel leen foofu tamit beneen préoccupation la véritablement ci continue discours moom moom la ñu war a dégg. Mhm. parce que ñaare boo dégloo ci suba daanaka wax yu bëri bëri li ci ëpp nañ ko ci dossiers yi nga xam ne

Wa, ni mwen kofon san krek ki kalam tubap, mwen ke, petet mwen ane ke eh, ben objektif bun tek non rek. Wa, ki biv lol, fok temet ni am soukles. Mam dal, bou feke ni 14 eh, jou bun defe konfans de pres ak jounalist si, 14 jou si desi khamni ya riyen a dir, otan petet renvoye. Me, dey lo khamni, efektivman, komne ko sinisam wakhey, mën naa dem a dem a dem ba finalement tàmbali nag di lassé parce que répétition day nekk te bu nekkee répétition léegi buñ demee dem ba war wax li am njëriñ population bi day jàpp ni répétition rek la xam nga wax li mu wax. Mhm. cest bu fekkee ni chaque fois répétition répétition la benn jour. mais mais est-ce que est-ce que répétition lay nekk aussi bu fekkente ni acteurs yi dañuy changer bu fekkee par exemple euh, tey am nga par exemple ministre de l'intérieur euh, am nga. pêche am nga am nga santé am nga environnement mais ëllëg mën nga am forces armée mën nga am affaire étrangère yaakaaruloo ni mën na am changement. Oui, effectivement effectivement Alors loolu bu fekkee ne format boobu la. effectivement ah mais bien sûr noonu lay demee sur le principe de la rotation mon. effectivement ah, man na am am am yu bees yu ñuy indiwaat loolu moom effectivement. mais peut-être tamit répétition boobu tamit peut-être euh, rendez-vous c'est-à-dire que problème mooy il faut pas que ça soit des rendez-vous manqués. xam nga ministre de la de la pêche mën nañ ñëw ministère de la pêche ñëw beneen ministère ñëw tout ça mais vous faites ni ay am nay ratage day dema dem ba nga xam ne même bu fekkee sur le principe de la rotation la sax ni ngi duñ ñëw parce que li ñu ci doon seetlu ci li ñu ci doon xaar duñ ko ci gis xam nga dama mhm. wax mhm. c'est-à-dire bu fekkee ne chaque fois ay sorti ils disparaît plus ou moins la même chose quel que soit département waa ñu ay déception mu nekk ay rendez-vous manqué tamit loolu effectivement day rejoindre li suñu sàmm wax rek que ni daal foog ñu jéem a xoolaat période ba xam fekkee un mois wala deux mois mais encore une fois man euh, je maintiens limo ma ci ginnaw mhm. communication c'est le contenu d'abord. Mhm. Et nous, problème communication ak gouvernement on a des problèmes de contenu. C'est nga bëgg vous wax ci loolu lan nga bëgg wax ci. contenu de contenu moy mhm. fokk depuis indépendance ba légui nit ñi dañuy ŋàññeent ci affaire de communication bi. maanaam daa parti politique ñoy affronté ni défendre seen leader ñi attaqué leen leen leader yi jàmbur loolu mooy li nga xam ni moom mooy am comme communication ce qui tient lieu de communication publique pour le moment léegi nag lan lañ bëgg mooy ñu révolutionner les contenus ñu ñuy wax ci politique publique yi euh, route yi ñuy defar ñu ciy wax projet yi de société ñi am secteur ñu koy développer ñu ciy wax dans le domaine de la santé ñu ciy wax ñu wax seen réalisation ak li nga xam ne moom lañ ak ak budget ak xaalis bañ def ak budget ak yooyu. mais muy leer aussi loolu remarque mooy. loolu c'est important d' accord souvent li ñuy wax mooy politique politique. d' accord loolu day d' accord alors Assane yow xam nga ni taskatu xibaar nga parfois di nga di nga am jafe-jafe ci am accès ci yenn yenn ministres yi pour mën leen a laaj wala nangam nangam est ce que yaakaarloo ni opportunité la bii pour que au moins nga mën a am 9 à 10 ministres ci sa kanam nga mën a wax ak ñoom parce que parfois di nga gis sax ci yenn gouvernement

daanaka débat la échange la donc dafay dafay am solo trop trop ndax dañu am toujours problème comme ni nga ko waxee rek da ngay enquête d'ailleurs nga dem ci benn direction générale ñun la direction générale bi ci boppam ne la on est ouvert y a pas de souci boole la ak benn technicien mais après celui-là du la du la jox dara donc on a on a ces problèmes là dañuy dañuy gëstu ba sonn dañuy am impression sax journaliste yi du ñu gëstu alors que en réalité dañuy gëstu ba sonn duñu ñu jot dara hmm. léegi nag bu ñu defee exercice bi ah ñun de suñu xel daf ciy dal sur le principe maintenant dañ leen di xool nan ñoom nan lañ koy doxalee parce que dañ leen libéré comme ni ma ko waxee sànq yii nañ leen may leen ñu mën a wax wax ak askan wi ci lépp lu leen soxal dossiers yi bari na professeur wax na ko sànq euh, Mor Faye euh, dossiers yi bari na li nga xam ne ñun bëgg nañ ko xam bari na mais nag euh, liggéey gouvernement du communiquer rek il faut nga communiquer nga liggéey ba pare door a communiquer il faut du concret maanaam nga def loo xamante ni nee na nee na jëm am jëm. nga ne ah lii kat mu ngi nii joxoñ ko loolu mooy ci loolu ngay mën a communiquer mais nag bul communiquer pour jéem a euh, gëmloo nit ki loo xamante ne amul waaw wala fekk lu am nga bi ko weddi loolu loolu nag la mooy danger bi nga xamante ni moo am ci exercice noonu ba nga xam ne journaliste dañ ci am rôle mooy di segg maanaam def traitement Euh, information yi bi ñu ci jotee bi ministre yi waxee pare ñu traité ko. Mhm. def nii ngeen def tey maanaam mhm. segg ko xool ko. Mhm. xam euh, lu ci yanu maanaa ak lu ci yanu maanaa ñu mën ko jotale askan wi loolu aussi. responsabilité journaliste yi. d' accord alors euh, professeur Mor ci choix bi naka nga ko gisee choix bi ñu def tey parce que mel na ni ay ministre la yoo xam ni ku ci ne sa secteur daanaka am na actualité bu ñu fa mën a jàpp naka nga gisee choix itam waaw soit yi soit yu yu yu am solo la de toute façon euh, lo xamni mom moom am bu ñëlé euh, dañ koy jéem a euh, samp day nekk ñëlu askan wi ñu ko rejeter lu am solo la légui nak man li bëggoon wax dolli ci li Serigne Samb wax légui moy que format bi aussi doit être un format négocié ndaxte comme ñoom li ko waxee ni négocier c'est-à-dire lan nga bëgg wax ci négocier. la presse day bëgg négocier gouvernement qui ci format bi par exemple un élément de négociation pour la presse c'est l'accès à l'information mhm. c'est l'accès à l'information publique dans les grandes démocraties am na dossiers yoo xam presse en tant que corporation mën d'accord sur le principe de communiquer avec euh, de relayer en fait les informations du gouvernement mais tamit na gouvernement bi aussi mhm ubbi eh, ay ubbi journaliste enquête élément concret ñu koy askan format presse aussi négocier format bi mhm. aussi beneen aspect am na ko la presse aussi dafa veiller pour que les salles de rédaction ko transformer en d'accord

Hein? Euh, donc, sur qu'on a quand même le ministre des Affaires étrangères, parce que mhm. les Sénégalais de l'extérieur de l'immigration, quand même, interpellent aussi le ministère des Affaires étrangères. Mais dans tous les cas, le choix est extrêmement important, parce que le ministre si on me répondre aux questions, euh, véritablement, il y a souvent qui la souvent soulever. Donc, am a ci solo trop trop, donte nag des évidemment, L'exercice du Khaïna bien bien répété, mais je souci rek que li institutionnaliser, c'est un risque. <laughs> maanaam dañ ko def insti ko institutionnalisé ko mais mais xam nga ni du dara ci ñoom ñu def ko ñaari yoon ñett yoon génnaat ci xam nga loolu <laughs> loo du dara ci ñoom loolu. loolay wax xam nga ni loolu yow mais xam nga ni loolu du dara ci ñoom. du loolu voilà important aussi. moom moo andi découragement bu mag a mag ci askan bi ak ci journaliste yi. Mhm. Eh, te bu boobaa aussi journaliste yi continuer di def li ñu daan def ñu leen di xas naan. ñu dem aux sources ak yooyu fekk en réalité dañ dul am accès aux sources. voilà merci beaucoup réew mi ñoo ko bokk. <laughs> dëgg la merci jërëjëf jërëjëf euh, professeur euh, Mor Faye di jàngalekat ci université Gaston Berger euh, bu Ndar nekk spécialiste ci média ak communication Assane Samb nekk analyste politique nekk directeur directeur de publication bu rewmi quotidien euh, kon mbokk mu nekkoon xibaari ak Futur Média Abdoulaye Diop mo nekkoon ci xarala gi yassine Pouy ci digital bi euh, ci réalisation bi El Hadj Ndiogou Diène moom ci nekkoon ànd ko ak Pape Oumar Diaw euh, pam nga Ndiaye nekkoon ci xukay bi ñu leen di jox daje inshallah ci benen xibaar bu ci alandé jëf ñu leen mu ak